Jangan, jangan, jangan.

Thank you. Mam, mam. Kay, kay, kay, kay. Dafa am Mercedes, gëmal ko. Sa, Lên cục, lên cục.

Bini Bama avec le président de Tantongo. Bini Bama avec le président de waaw moom la ñuy xaaral beneen bi ci oto mu

baax na bismillah ñu euh, toog chef de village jàpp doon Missaly Ba Thank you.

kon ñun ñi li ci sëriñ bi waxoon ku ñu yërëm la ñu bëgg ku ñu sonal bëgg ñu képp ku ñu yërëm te mënoo noo yërëm da ngay wax rek sawaay góor yow yow yaa yor paasu président gore eh kii mooy paasu président yow bàyyi li nga def paasu président la góor loola neex def ah, yow kay fatal asalaamaaleykum wa rahmatulah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. di nuyu siapa? dulu bu teew ci jotaay ci rek ci bépp ndomba tànk bu yaa di nuyu bu baax a baax ki nga xamante ni di di di di Thank you akhlak yang akan saya tetap dulu dulu dulu saya nak perlu faham aku nak bawa Em baik, baik. Sama xol dafa seen ndax tey ñu ngi doon liggéey te mu doon xamante ni mosuñu ko gis dañ ko doon dégg ci télé mu ñu jaral ñu bàyyi suñu itte mu ñu jaral lu ne tey yàlla womatu womatu ba suñu biir tey ñu koy sant yàlla bu baax a baax di la ñaanal yow toog li nga bëgg ci Sénégal yaa ko xam yàlla ko suñu borom mottaleel ñun ñun lenn rek lañ sa kàddu la ñu yaa ngi dégg sa kàddu la ñu déglu sa kàddu la ñu jëfee benn kàddu la am te moom mii lañ ko sàddee objectif bi benn la mooy ñu ne yow tànk ak tànk mbagg ak mbagg ba kii ko ne incha allah dama ko. li si am yëpp nag loolu tiitaluñu Dakar dëgg la dox dëgg la Afrique nag tànk amoon noonu doon dox ñun am nañu yaakaar bu baax a baax 2024 président Ousmane Sonko day gagné Sénégal. te ñun wax dëgg Pambal dañoo am yoo xamante ni tey jii nii. wax dëgg yàlla dañoo métti lool. Pambal doon na premier arrondissement ci Sénégal. premier arrondissement ci Sénégal Pambal la. yaa ngi dégg te ñun ñi fi jaar ñëpp yaakaar naa jël ngeen raanaa bi depuis Morolan depuis Daara Alpha ba des na 9 kilomètres ba Tivaouane ñun loolu jaaxal nañu trop. amul ku fi jaar te jooyuñu ko mais ba léegi saafara amut olof yaa dafa wax ne bu cin bi taxee tàkk fu ne nga koy xambee te ñun yaakaar nañu matakii buñ ko dugalee ci cin bi dina tàkk maa wax loolu. leneen le moy ñun tay dañu am jafé jafé yu bëré bëré bëré yoon mo ci mo ci ñëk leneen ni moy walu santé tay commune Pambal ak nu tollu benn poste de santé lañu am loolu mu doon lu doy waar leneen la tey jii ni bo duggé ci poste santé bi nga genn dañ lay bindal ordonnance da ngay doy 9 km nga jënd ko waaye bala ordonnance bi ñëw Pambal ak duddé ñu ngi ci kenn rek lañ ci yaakaar mooy yow mi ngal la bu la yalla yobu 2024 ba nga yoré réew mi ñun li lañ jëk ñaar mooy pharmacie pharmacie la ñu bëgg ndax ñu wér leneen li mooy wàllu éducation tali bi dañ koo jooyoo jooyoo jooy ba bëgg a dee amul ku fi jaarte waxuñu ko dañuy dig rek dañuy dig ñu bàyyi ñun suñu yaay yaa ngi ni suñu papa yaa ngi ni dañoo tàccoo tacco ba amatul lu ñu tàccoo ñun duñu tàccoo ak kenn ku dul président Ousmane Sonko tàccoo leen ma ko ñun ñu bëgg wàllu éducation yi élèves yaa ngi ni dañoo am benn lycée vingt et un villages rek environ lycée bi daa dem ba saturé ba élèves yi kenn xamul ñun ñu ngi ñaan ngalla ngalla bu la yàlla yóbbu 2024 ñun am nañ ngëm-ngëm na ngay toog ci bopp réew mi ngalla nag ñu béy beneen lycée boo xamante ni day jëlee yindaan kaadaan duuñaan njaxaate ñoom ñu mën a yem foofu ndax tey élève bi nga xamante ni day jàngi boo xëyee nga def 9 kilomètres balaa nga àgg fi nga jàngi loolu problème la wallaahi ku ñëw école day raxasu ndax raaraan bi duma leen ci président Ousmane Sonko rek lañ ci yaaka leneen li moy jeunesse bi jeune yaangi ni bëgg liggéey ba dee jang ba doon karak kenn amu ci liggéey chômage total ñun jeune yaangi ni machallah bu ñu yalla dimbalé ba 2024 ngëm-ngëm bu ñu am ba nga gañu réew mi gestu waa Tambal ngal la xamna tay ñun suñu xol dafa sédd leneen li moy walu sport amuñu lu dul miir lañu jox ñun infrastructure amuñu ci zéro commune Tambal dara dara dara dara dara dañuy digg di ñu bàyyi mu ngi ñaan ngal président Ousmane Sonko ma ngi ñaan ci barki Serigne sama turando ma ngi ñaan ci barki sama turando Serigne Fallou Mbacké Ousmane Sonko yal na la yalla sam biir ak biti yal na la yalla ar comme nu mu aré reenu souf reenu ñam bi ci biir souf ba max nuko nu yalla bu la sonal mënal dara ñun ñu jakku ñu tanga yaangi xey di mëna wax di bën def ñu ngi sa gënaaw ñu rek yow ko fo yow président Ousmane Sonko Ousmane Sonko Gracias. dans le ndox kàddu gi Lamp Fall Dior nekk coordonnateur Pastef Kaba. waaw président nee na couvre-feu bi na ñëw. Assalamu alaikum.

di jël suñu nuyoo nag da ko jaarale ci loxol chef de village mooy Baye Ndiam Jonn nekk fi autorité waaye itam da ko tegaat ci loxo représentant xalif général de Mouride mooy Serigne Mokhtar Jonn moom moo defoon ñaan bi sànq. ñu ngi leen di gërëm ci teewaay boobu bu baax ku ne xam na ni jamono dafa xat soxna yi fi toogoon doon photo mooy kuubal bi Baye Ndiam mi toog di chef de village xew bi kërëm la amee moom mooy seen pap te mu dagg jitteem yëpp bàyyi fa gan ñëw fii. kon ñu ngi koy gërëm baax di ko di gërëm délégation bi honorable député Assane Diop ñom imam Dramé ñom Abbas Fall yépp ñu ngi di gërëm bu baax di leen sant ci taxaway bi way ñu ngi gërëm suñu président jeunesse su Pambal yépp gis ngeen ni président man soko mu ngi ni ñëpp doon lim laame dinañ ko mësa tek bëtt bëtt ak bëtt depuis convention Askan bi ba tay mënu ñu faxee ba mu exi Pambal kon gàcce ma tay bés bu magal ci ñun bo xam ni commune Pambal toog ci biir commune Pambal jeunesse bi depuis bindu bi ba tey ñu ngi doon toog beneen wax dem leen bindu ji dem leen bindu ji xeex bi nag bindu la ak taxawaay taxawaay bu ma sëkk di lu kaddu bi nga xam ne moom la président Sonko di joxe mooy kàddu dëgg ak njub ñun ñi toog fii bu ñu toogee tey di wax ci politique xam ne ni grâce à président Sonko ñun mosuñu am carte de membre boo xam ne benn parti la kon bu ñu demee ba ñun ñëpp jeunesse su Sénégal ñu soobu ci politique grâce à président Sonko waaye la tax loolu moom ci moom la nekk ndax dëgg ak njub la woon askanu bu fekkee dafa mën a yor suñu impôt yu domine 15 ans yor fiscalité benn dërëm mënuñu ko ko toppee moom mu yàgg ko wax ba Sénégal yëpp xam àddina bi yëpp xam ko loolu wax dëgg sa yàlla loolu gàcce ngaalaama kenn ku ne yaa ngi ko siiba ku jëlee budget Ziguinchor ci 2 milliards yóbbu ko ci 5 milliards barki Demba Ndiaye mu ngi def euh, grand lancement travaux yi muy stade yi muy marché yi ndax yéen ñëpp ni ma koy suivre noonu ngeen koy suivre. muy boulevard yi nga xam ne mu ngi ko yor a pavillage loolu kooku te mu dajale 6 milliards bis bu 5 milliards mu yóbbu ko 6 milliards 5 milliards nga yóbbu ko 6 kon kooku boo ko joxee réew mi tey 29 milliards yeeg 30 milliards yeeg 100 milliards yi gars yi jël bëggul dugalee ci réew mi kon war ngeen a gëm ni wartuñoo dugg ci gaal yi da dem di tekki ji ci àll ba nañu gëm ni tekki bi dëkk ci dëkk bi la tekki ci dëkk bi la lay tax loolu mën a am nag moo ñu yor taxawaay bu dëgër këj taxawaay bu ma sëkk ci ginnaaw président man Sonko buñ ci kaf buñ ci ree nañ ci ànd ak nañ ci ànd ak fayda ak yar kon xëy na li ci ëpp dool yëpp duñ ko mën waaye ñu ngi gërëm ñi nga xamante ni ñoo ñoom ñoo bokk Pastef commune de Pambal nañu gën a mobiliser bu baax gën a massifier parti bi parce que parti dëgg ak njub la parti bi du xeex du xuloo nañu gën a wax ak jaami yàlla yi ñu gën a xam projet bi lan moo ko tax a jóg ndax ñii gis ci TikTok bi yëpp ñoom li ci ëpp doole ñoom ñu ngi toog bàyyi seen yite bàyyi fal mais tiktok bi laa ko xamee yaay Fatima ci tiktok bi laa ko xamee ñu bëree bëree bëri gis nga ko bàyyi fal bu mag bi. kon liggéey bu mucc ay boobu ñuy def ci tiktok bi di sensibiliser nit ñi wax dëgg sa yàlla ñun itam war nañoo ne ci suñu rox ci suñu biir kër yi ci suñu biir néeg yi ñu mën a fexee ba itam wax ak nit ñi tijji seen xal yi su ko defee ñoom ñu mën a liggéey bi liggéey bi ñu kanam ñu ngi gërëm itam ñëpp ko xam ki mu ngi dëkk ci dëkk bi di samay pap di sama di ñoom Fallou ñëpp ak sama papa bi ma jur toog ci biir kër gi ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ak ñi nga xamante ni maa ngi ñoom ñoo bokk société bi ñuy liggéey muy Abdoulaye Tine Laman boo xoolee li nga xamante ni moo nekk commune Pambal xam ngeen ni ñoo ko fa def Pambal bu amee xar kanam la ma woon euh, ya mooy li ñu def commune Pambal loolu moo changé xar kanamu Pambal mooy lan mooy extension bi moo changé xar kanamu Pambal boulangerie bi moo changé xar kanam Pambal te loolu defe naa ni ñun ñoo ko fa def du benn bokk yaakaar du benn parti am jàppale nañu kon ñu mën ko fay def. kon bu ñu bàyyee liggéey boobu ñëwaat ànd ak koo xam ne kii mosuñoo nekk homme politique ne leen kaay la ñu ànd moom liggéey Sénégal wala ñu liggéey commune Pambal kon gàcce ngaalama kaay la ñu ànd ñu liggéeyandoo commune Pambal kilifa gi nag dañ koy ñaanal gudd fan gu ànd ak yàlla musal ko ci musiba. musal ko ci gàllankooru noon yi képp am na ñaan kuy tëdd ñaanal ko yàlla yàlla musal ko ci noon yi yàlla musal ko ci faxasal yi yàlla aaral ko jëmmam ji aaral ko ruuxam bi ba duñ ko mën a dara lu waay yéenu yàlla këpp ci kawam loolu yéene boobu lañ am ci moom te suñu xol sedd na ñu ngi gërëm ñi nga xam di xëy na temps bi moo xat waaye ñi ñu bokkal liggéey installé fi extension installé fi boulangerie installé agriculture defe naa ni président bëggoon na visiter agriculture bi Assane Diop doxoon ci mais jot moo amuloon kone gis na temps bi mais kon bay na gën ñono fi kon lolu sante yalla ñu ngi gërëm ñëpp di gërëm ñëpp gërëm ñom Lambe ñom Adama ñom ama Dione ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp tous les Pastef. kon jërëjëf jërëjëf asalaamaaleykum mbokki Pambal ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp di jiital ci nuyu bi kilifa yu tedd yi fi nekk muy eh, imam ak suñu baay ji nga xam ne moo fi toogal sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg ak notable yeeg dignitaire yi fi nek yeb di nuyu jigen ñi di nuyu ndaw ñi jeunesse bi euh, waye di beral nuyu spécial suñu mag ju bax gi señ lampfal John di nga xamne mom mo jité liggéey bi fi waye ak ñi mu andal ñep wax na témoignage bu rafet ci sama rakk ji bi muy wax wax ni moo koy jàppale bu baax ci liggéey bi di remercier ñëpp nag ci tertu bi ngeen ñu tertu bi nga xam ne sedd na suñu xol torop mbokki Pambal lii de moo tere nelaw Macky Sall mooy dox nemmeeku ñëw fekki sénégalais yi seen biir dëkk saafoonteeg ñoom lii lañuy bañ a dégg moo tax saa su nee ñi ngi reprendre nemmeeku tuur bi rek lu ñu yoroon ci ay butéel dinañ ko yëngal lu ñu yoroon ci ay magistrat dinañ leen yëngal gis ngeen li fi nekk ci alkaat xam ngeen ni lii amoon na feneen fu moom njëriñ ku dul topp nii waaye gannaaw yàlla kenn mënuñoo tere def nemmeeku tour nemmeeku bi nag du dara lu dul ñëw waxtaan ak nit ñi seen biir gox waxtaan bi sax mënoon na ñàkk bu ñu duggoon ci dëkk bi rek teg waa dëkk bi continuer jàpp naa ni doy na sëkk ndax amul luñ leen lañ mënul wax amul lu ñu leen mën a wax tey lu ngeen xamul ba pare ndax yéen ñëpp yéen a ñuy déglu depuis ay at xam ngeen lan mooy suñu mbébét ci réew mi xam ngeen lan mooy suñu discours xam ngeen lan mooy suñu yëg-yëg kon suñ ñëwoon rek nuyoo dem parce que li ci ëpp solo mooy dugg ci dëkk bi ndax damay faral wax ni sénégalais da koy fonkal li mu fonk sénégalais fonk na kilifa diineem sénégalais fonk na dëkkam ñaare yooyu sénégalais boo ko nangul mu nangul la kenn ku ne sénégalais nga am nga fierté ci nekk sénégalais li koy firndeel mooy bu senegal demoon Coupe d'Afrique tey amatul Pambal amatul Morola amatul jaxaw amul feneen ak feneen ñun ñëpp sénégalais lañu waaye ci biir Sénégal googu nag ku nekk am nga foo soso te foofu nga solo soso lu mu tuuti tuuti tuuti moo lay gënal feneen kon ñëw fekk leen seen biir dëkk ñu nit muy lu rëy ci ñun ndax su ma fi jógee tey dinaa ku ma tuddati Pambal dinaa ne Pambal xam naa fi mu doon dem naa fa xam naa dëkk ba kon nemmeeku tuur lu am solo la ñu teg ci nag ni nemmeeku tuur bi feddali kóllëre la suñu digganteeg dëkk bi feddali kóllëre la suñu digganteeg suñuy militant ak suñuy sympathisant waaye ñëw gën a jox doole ndaw yi ñu toogal ci dëkk bi la ndax moom de xam naa ni nawoon ngeen ko lool ci lu bëree bari waaye naw ko ci politique bi mu nekk waaye tey suñ fi jógee moom dina gën a am sac nit ñi ma bokkal politique di liggéey li fa gën a kawe ci kilifa ñëw na ba ci dëkk bi loolu am na ci solo Pambal nag dama fay gis loo xam ne dafa sedd sama xol ndax bi may ñëw dañ ma ne moom mii toogal ñu fii daanaka waa dëkk bi gërëm nañ ko ci taxawaayam ci wàllu liggéey ak wàllu koom-koom te loolu dafa am solo ndax nekk exemple day yombal lu bëri tay nee nañ ma yor na tool boo xam ne ngi mi liggéeyal matna 150 hectares wala lu ko upp ñu fi def xal di fi def maraîchage di fi def lépp te xaaruñu kenn sen ñàkku bokku la ñi taxawal fi boulangerie taxawal fi station service ta lolu xamna ni limay xeylo ci ay ndawu dëkk bi bëri na kon kii dañ koy jox exemple du ma ne waa Pambal kese waaye dañ koy jox képp kuy patriote ndax at ci ñetti at ci gannaaw bi ñuy lancé vacances agricole patriotiques moo taxoon ñu bëggoon ñëw visité yu mel nii moo taxoon nguur dafa war a jàppale askan wi waaye nag ndimbal léeg-léeg da war a fekk loxol boroom moom li muy def nii ëllëg bu ñu amoon nguur gu baax nguur goo xam ne xam ne lan mooy priorité Sénégal priorité Sénégal du jël milliards yëpp dem suur ko ndakaaru naam ndakaaru ci Sénégal la bokk suñu capital la war nañ ko defar ba fu nit jógee ci àdduna bu ñëwee ne ah ñii de seen capital baax na waaye lan mooy defar réew mooy koom-koom koom-koom fan la nekk fii la nekk fii soo soo génnee ci dëkk bi léegi li ko wër yëpp suuf suñu mën a bay la suuf suñu mën a sàmmee la kon ku bëgg a defar koom-koom réew lan nga koy defaree ci mbay la réew mu la gën a baax mbay moo la gën a baax bu ci sonn réew mu la gën a dëgër mbay ba fexe ba lu mu soxla lépp wala lu mu li ëpp ci li mu soxla ci li muy dundee ñu bayee ko ci réew mi réew moom moo la gën a dëgër waaye réew moo xam ne ceeb bi dañ koy jéggaani fariñ bi dañ koy jéggaani diwlin dañuy jéggaani leneen ak dañuy jéggaani réew mu amul koom-koom loolu mooy Sénégal ku bëgg a defar nag Sénégal da ngay defar koom-koom te koom-koom gi ci mbay la commencé ndax li ngay bay moo lay permettre après nga am industrie boo xam da nga koy transformé loolu mooy indi valeur ajoutée la nga soxla nga dundee la ci ëpp nga génne bitim réew andi devise ci réew mi moo tax ki fi nekk dafa xamul ndeysaan foog na ni gis-gisam yëpp mooy naa defar ab train bu ñu ne def nañ ci 1500 milliards naa defar ab BRT naa tabax ay stade ñu ne def nañ ci 155 milliards ak yeneen ak yeneen waa jamono jooju loolu lan la andi ci koom-koom loolu lan la andi ci koom-koomu dara la andiwul koom-koom koom fii lañ koy defaree ci kaw gi kenn du ko defee foofu tey boo jëlee koom-koomu Sénégal téeméer boo jël juróom-ñett fukk ak ñett ya ma nga ndakaaru te Séné ndakaaru boo jëloon su doon Sénégal téeméer la. ndakaaru matul matul benn genn wàll la ndakaaru matul benn moo tax nit ñi di jóge Pambal di dem ndakaaru waaye xam nga ni ngelaw gi ñuy noqi fii kenn du ko noqi ndakaaru de fii pollution amu fi kon doomu Pambal bu amoon li ko gënal fii Pambal du dem ndakaaru ñun nag loolu mooy suñu gis-gis loolu lañu ñu bëgg a tabax ak yéen loolu moo réew mu la développé rek looloo ko téye France bi ngeen di dégg mooy premier pays agricole ci Union européenne France bi ngay dégg seen mbay moo leen téye Espagne mbayee ko téye Italie mbayee ko téye balaa nga naan industrie wax mbay loolu nag lu ñu bëgg a ànd ak yéen ñëpp la téye alalu réew mi ci biir réew mi xam ngeen ni yàgg nañoo noot tey alalu réew mi yépp pétrole gaz zircon phosphate ak yeneen ak yeneen tubaab yaa ngi koy génne bàyyi ñu fi ñun suñu pauvreté te ndaw gu ne sama pétrole dem na sama gaz dem na sama phosphate dem na kon man maa ngi dem ñu ne ko doo dem ba nit ñi di jël ay gaal di dee ci biir géej gi jeunesse de Pambal indépendance dañu bëgg a jël fi mu toll nii nag 63 ans amuñu indépendance de amuñu ko indépendance boobu la ñu a jël la may wax toujours suñu nee tubaab yi nangam nangam tubaab bi ñëw nañu ba ci man ba ñu toogee dama leen ne ñun bañuñu leen waaye suñu bopp ñu gënal bañuñu leen de waaye suñu bopp ñu gënal te réew mu ne noonu lay doxe lan moo tax ñun yàggu ñoo noot ñu nangu ko Chamadou Bamba lan la doon xeex Samori ture la la doon xeex Lat Joor lan la doon xeex ñun ñu ñëw nag nekk seen i sët ñu ne ñu jox nañ leen indépendance waaye seen koom-koom ñoo koy téye seen euh, koppar ñun ñoo koy téye marché public yi ñun ngeen koy jox ak leneen leneen ñun ñu nangu ko ba tey ji loolu nag moo fi war a dañ te buñ ko fi jëlee woon rek ba suñu alal réew ñu téye ko ci réew mi ku fi lubal alalu réew mi ñu teg yoon sa kaw kon duñu toog fii ngeen naan ñu tali pambal bi leneen lañuy wax waaye duñu wax tali pambal bi lii nag mooy contrat bi ñu seq ak yéen ñun ñëw ñu di yëkkati ay 5000 di leen jox ñëw ñu di leen dikk la ñu seq ak yéen mooy ñu ànd ñun ñëpp defar suñu réew yàlla xam na ni lu yomb la wallaahi la ñu am ci koom lañu am ci mënin France am ko la ca des mooy am suñu fulla bopp ñaan yàlla mu jox ñu ay njiit yu baax loolu rekk a fi des kon gis naa nag ni fu ma dem ñu ne ah bala ma nan salam aleikum loy a dégg boko ko boko boo bobu nak dama bëgg mu baña doon mu baña doon rek absence bu ñuy wax na doon jëf ndax askan aw askan bu jóg taxaw gis ngeen sen kaaru gendarmerie lañu kenn dara bu dee juróom a génn mënal leen dara waye bu dee dix mille a génn mënañu leen dara mo fi xawon mars 2021 jeunesse su Sénégal laay wax gis nga boo ko laalee boobu tey la war a door nag ci fikku weer yi nga xam ne moo ñu dox moo dox suñu diggante ci ñu jëlaat suñu réew moomal ko suñu bopp. ndax amul ku umpale Sénégal nii bu ñu yàlla may ñeeg 2024 Ousmane Sonko candidat la midi élection bi jeex la ci kattanu yàlla waaw léegi est-ce que léegi. est léegi yéen jeunesse senegal bi parce que mag ñi gis nga mag ñi seen xol lépp ngi si ñun fañ a toog ño la mën ñoom mooy ñu ñaan ña ngay ñaan ndax du mag ñi la ñu naan génn leen ñu taxaw a gaay de ña ngay ñaan te gën naa ni yàlla dina nangu ñaan yi waaye nag yàlla dafa bëgg ñuy sabab léeg-léeg nit ñi ne jàmm jàmm jàmm leen waaw waaye jàmm ñaar a koy dox jàmm ñaar a koy dox yàlla ci boppam moo bëgg a jàmm diine gi ñu bokk ñun ñëpp islaam la tudd ci salaam la jóge waaye teewul ki yàlla yónni woon ci ñun nga xam ne kenn ëpp ko yërmande kenn gënu koo bëgg a jàmm waaye toll na foo xam ne dafa mujj rocci jaas si dem jàmmarloo te moo ñu gën ñun ñëpp kon ñun jàmm rek nañu bëgg songuñu kenn dóoruñu kenn reyuñu kenn tëjuñu kenn kaso té ñu ngi ñuy song ñu ngi ñuy ñu ngi ray ñu ngi ñuy kasso dama ne li gëna neew doole ci bayima ma duggalé ko dugalee ci néeg di ko métital dina am fo tollu mu song la bu ab béy sax dina essayé mbëkk budé mous dina xosi budé xaj dina mat budé mbam xox dina la song lolu moy résistance bi ñu wax kon boko laalé bobu est-ce que ñun dinañ liggéey li ñu liggéey ba ñepp am yaakar ni fukki weer mo des pour ñu jilat suñu rew mom ko Macky Sall ak ay magistrat ne lol du fi amé ñu nangu est-ce que ko nangu kon bu joté kenn ku nekk ci yeen na fagaru xex bi du pambal lañ koy défé ku ci mëna dugg auto dem Dakar ñëwal Dakar parce que dafa am lo xamné duñ ko nangu la ca dess nak nena man Ousmane Sonko bu dee namm naa leen wor yàlla bu ma yàlla mës gisale ak nguur yàlla bu mës am loolu du mës a am ñun politique politique ñu pour xaalis bañ nañ ba set salaire politique duñ ko jël wax na la ñuy liggéey Ziguinchor Ziguinchor jëluma fa salaire jëluma fa carburant jëluma fa dara te lu ma fortaatu yóbbu jox waa Ziguinchor gis nga nit bu la yàlla bu la nit ñi jiitale bu la nit ñi jiitale bul xëccoog ñoom dara ci li ñuy bokk yow yaa war a njëkk a joxe exemple ci li ñu war a def noonu la ñuy yoree réew sëñ bi dafa wax yërmande nit ñi boo leen yërmal mënuloo leen mënuloo leen jëriñ hadis bi dafa wax ni wala waxu mag la seydul qawmi xaadimuhum wax bi fóot la ki nga xam ne jiital nañ la yow yaa war a nekk xaadimu nit ñi sëñ Tuubaa lu ma waxoon xaadimu rasuul ñu nekk ki nga xam ne yow la ñëpp wóolu ba jiital leen yow yaa war a nekk seen jàmm yaa war a sonn ci ñoom waaye toog këpp alalu réew mi yëpp yor sa gendarmerie yor sa police ku yëngatu nga dóor kooku est-ce que mën na defar réew mi mënu ko nit ñi boo leen yërëmul mënoo leen jëriñ kon kontaan nañu torop dëkk bi nag bi ma fi duggee ba léegi ñi fi nekk ñëpp jon ak tin lañu ñu sant jon ak tin dëkku séeréer la samay dëkku samay dëkku cousin lañu waaye samay dëkku nijaay lañu ndax dama di joolaa ci baay di séeréer ci ndey ma ne gis ngeen dañoo ñëw tombe ci mariage ñu andil ñu ñaari mare yi ñu ñëw gis ngeen joolaa ak séeréer ni ñu niroowee gis ngeen caq yooyu marié yi takk moom la joolaay di takk muy unité culturelle lii mooy Sénégal bu ñu ko kenn yàqal politiciens yi fi nekk bëgg a féewale Sénégalais yi ba lu ñu musul dégg kenn musul dégg waxu tarixa Sénégal ci Macky Sall la xewee kenn musul dégg waxu waaso ci Sénégal ci Macky Sall la xewee kenn mësul dégg waxu région ci Sénégal ci Macky Sall la xewee benn sénégalais du nangu loolu Sénégal yëpp benn lañu ñun ñëpp benn say lañu ñun ñëpp benn culture lañu buñ ko kenn yàqal ñu ngi leen di gërëm leen sant asalaamaaleykum wa rahmatulah. ah waaw vraiment. sell gi bu baax ñoo lamp faal bi ñoo ànd Thank you. दोगो बेलू को अरे अरे अरे मम मम मम ए मम ए मम मम मम मम ए मम mom mom Angkai, angkai, Nabila. Kalau mau

গেলেন